asalaamualeykum tabaarakallaahu maa ngi nuyu waa dina Cheikh diaspora yépp di leen sant te di leen ñaanal yàlla ñuy dellusi ci question bi Cheikh Souleymane El Cheikh Montréal posé woon concernant Yaajuuj ak Maajuuj suñu ci dellusee dañuy gis ni Yaajuuj ak Maajuuj deux êtres lañu yoo xam ni yàlla moo leen bind kenn ki di jigéen kenn ki di góor bu ñu seetloo définition bi nga wax ni moom nga gis ñenn ñuy faral interpreté seen rôle muy rolu Yaajuuj ak Maajuuj ñu interpréter ko ci domaine philosophique ñenn ñu wax ni mooy Gog ak Magog ñu ni mooy diggante États-Unis ak Russie ñooñu dañ ko interpreté ci domaine filosofique ak ci seen xam-xam xëy na ci la situation actuelle du monde mais réalité bi mooy Yaajuuj ak Maajuuj yàlla indi na seen fés ci alquran bi mbokk yi di wax ak Zulqarnayni di Alexandre le Grand xam nga Zulqarnayni bokk na ci ñi dominé woon àdduna bi d'est ouest du nord au sud parce que Zulqarnayni benn secret mystique la ko yàlla joxoon muy baatu tasbix bu daan xëy moom zil qarnay ni chaque jour daan na def subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala qawla wala quwata illa billahi al ali al mille fois par jour yàlla dem ba jox ko secret bu mu dominer àdduna bi daan na xeex ay peuple mais gis nga bu daan xeex ay peuple dafa daan def dafa daan def ci pouvoir mystique mu dugal peuple boobu muy xeexal ci bëccëg moom mu nekk ci guddi mu dugal boppam ci ombre ci obscurité peuple bi duñ ko gis moom mu di leen gis bu leen dumaa ba noppi mu dellu dugal leen ñoom ci guddi dootuñu ko gisati mu dugg ci bëccëg disparaître noonu la daan def secret bi yàlla indi ci alquran ci baatu tuuliju layla fi nahaari wa tuuliju nahaara li layli secret boobu yàlla daf ko joxoon ni Alexandre le Grand mu dominer adduna bi mu dominer àdduna nag mu ñëw ba ci au bord de la mer Rouge ba ñoo tuddee Bahru Kalsum mu daje faak ay villageois yu yu ko doon jàmbat villageois yi ni ko Alexandre le Grand muy Zulqarnayni nga xam ni lu tax nu tuddee ko Zul ni moom nit la mais gis nga dafa amoon ñaari béjjën dafa amoon ñaari béjjën béjjën yi bi ñu demee ba wax ko ni ko moom yàlla def na ci moom nubuwa ca la ñaari béjjën yi disparaître ñu woo ko ni ko Zul ni mu répondre leen ñu ni ko dafa am benn xeet boo xam ni ñun xamuñu ci ban façon monstre la bokk mais gis nañu ni dafay nager xeet boobu ñaar lañ mais ñaari rab yooyu dañuy naaje ci géej gi génn ci tefes gi daan nañ leen gis bu ñu génnee ci tefes gi ñuy rëbb rab yi ñëw di naan si ci ndox mi mais dem nañu ba léegi yamatuñ ci gis nañu suñu doom yi bu ñuy dem ci géej ga di sangu ji rab yooyu songu leen euh, faagaagal leen léeg-léeg suñu doom yi sax duñu sangu dañuy toog ci tefes gi léeg rab yi génn am ñun ci këf lekk leen ndax amuloo ci garab bi Zulqarnayni interroger nubuwaam yàlla xamal ko ci wàllu xikma ni ko rab yooyu ñuy wax ni ñooy génn léeg di leen song di yàq suuf kenn ki mooy ki ñuy tudde juuj kenn ki mooy ma juuj ñoom ñaar la léegi xar ni laaj lu ci pexe yàlla ni ko il faut ma jox la pouvoir bi nga xam ni moom laa la dénk ci baatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala xawla wala quwata illa billahi al alil azim yàlla ni ko foog ma jox la ci ndigal nga transformé créer benn pouvoir mystique boo xam ni day dellu ci wàllu mu'jizaat waaw ci wàllu mu'jizaat lay dellu waaw parce que wëli yi ñooy def karaama yonent mu'jizaat lay def waaw mu ni ko na dellu ci wàllu mu'jizaat su boobaa nga créer ci benn grillage créer ci benn grillage grillage boo xam ni quarante huit mille kilomètres de long lay nekk ak quarante huit mille kilomètres de large nga parqué leen moo tax boo demee ci réalité histoire bi dañ lay wax ni Zulqarnayni mi ngi leen parqué ginnaaw géej maanaam ginnaaw géej lañ ko mën a tuddee mais ñun ci réalité bi niñ ko gisee man dema ni du ginnaaw géej man dama ni île la île waaw ginnaaw géej nag lañ ko mën a tudde ndax boo doxee ba wàcc ndox dëgg tefes te gisoo dëkk da nga naan ginnaaw géej la mais île la ndax boo sànnee sa bët de loin xam nga grillage bi moo gudd grillage bi quarante huit mille kilomètres de long la seetal loolu na mu toll quarante huit mille kilomètres de large en même temps mais gis nga boo demee ba sànni sa bët au delà grillage bi da gis ni ba léegi ci mer rouge di bahru xalsum dafa entouré fi yaajuuj ak maajuuj nekk waaw kon da gis ni ba léegi il la maanaam fi leen Zul Qarnayni parqué boo duggee ci mer rouge bahru xalsum da ngay naviguer ba gis benn île île boo xam ni lépp sable fin la sable fin bu weex tàll ci île boobu ci la leen Zul Qarnayni parke suuf si nag moo yaatu ba nu koy tuddee ni ginnaaw géej la ndax da ngay dox ba wàcc ndox mi di dëgg ci tefes mais boo xoolee réellement continuer dangay gis ni île la parce que mer rouge ba léegi dafa ceinturé dafa ceinturé île boobu lu tax nag île boobu kenn mënu ko découvrir lu dul nga nekk nitu yàlla mooy île secrète la yàlla dafa jël île bi nëbbu ko ci monde baatin yàlla dafa jël île bi nëbbu ko ci monde baatin moo tax bëtu kese kese du ko découvrir waaye dem pour def ay découverte aussi du tax nga tombe ci waaw ndax yàlla daf ko daf ko nëbbu ci baatin waaw lu tax mu nëbbu ko ci baatin mooy histoire yaa juuj ak maa juuj dafa war a coïncider avec la fin de temps ñoom gis nga jig kenn ki jigéen la kenn ki góor la mais gis nga chaque vingt-quatre heures ndax actuellement dañu affamé actuellement dañu affamé bi leen Zulqarnayni parqué ba léegi lafa fa jotoon romb ci ay picc ñu lekk leen léeg ñu toog ay année picc yi duñ fa romb di ko daw ñu affamé mais yàlla def leen ay être yu rëy bu ñu tëddee di nelaw seen nopp la ñuy sàngoo ndax rëy xam nga boo demee ci ñenn ñenn ñuy faral di jàngale wàllu histoire am na ñu dem ba defe ni euh, xeet bu bare lañu am na maanaam ñu dem ba defe ni euh, njaboot gu takku lañu ndax léeg-léeg nga dégg ñenn ñu nettali ci après la descente du profet Insa ibnu Mariam ñu wax ni Insa ibnu Mariam euh, jamono ju imam al-Mahdi génnee àdduna Insa nekk fi deux ans yooyu ñu ni Insa dina confronter ak ak ni yaa juuj ak maa juuj seen xeet di dem ba baree ci suuf ba niir suuf ba yàq suuf ba mujj sax ñu ne insant dina dem ci la moo Sinaay pour taxaw fa pour ñaan yàlla exterminer xeet yooyu yooyu benn théorie la yooyu benn théorie la mais réalité bi ci am te histoire sainte bind ko te muy demee noonu mooy yaa juuj ak maa juuj benn góor lañ ak benn jigéen maanaa ñaari nit lañ ñaari jëmm ñaari jëmmi rab benn rab bi góor la benn rab bi jigéen la léegi nag chaque vingt quatre heures yaa juuj dana wax maa juuj ni ko bu subaa nañu bëtt grillage bi dem tukkil àdduna ñu essayé jéem a griffe jéem a griffe ndax ñu am doole la ñu grillage bi ba du des lu dul benn yoon bu tuuti pour ñu génn ñu ni nañu reposer ba suba sàngoo seen nopp seen nopp la ñuy sàngoo nelaw pour wax la ni ñu rëyee bu ñu tëddee comme waxuñu incha allahu la lendemain bu ñu jugaatee gis ni fa ñu fatt fa ñu fa ñu daggoon démb fa ñu griffé woon démb yàlla ràbbaat na ko ñu dellu toggaat guddi ñu waxaat bu subaa nañu tukkil àdduna noonu lañ koy jàppee chaque jour bis bu nañu jéem a forcer grillage bi mais gis nga yàlla ci hikmaam day dem ba def ñoom ñaar bu ñuy sëy muy diggante yajuj ak majuj danañu mës am benn doom majuj ëmb ñu am benn doom doom bi nag bu juddoo rek yàlla ilham leen ilham leen baatu insha allahu su neexee yàlla ndax yàlla dafa ni wala taqulanna li cheyin inni failun zalika qadan ila an yasha allah wazkur rabbaka iza nasit su ko defee nag baatu insha allahu bi yàlla yàlla ilham leen ko bu leen ko ilhaamee ñu jël seen doom bi tuddee ko incha allah te du ñu xam tur ba lu tax ñu tuddee ko ko su ñu demee nag ba war génn yàjjuj dafay wax majuj ni ko bu subaa nañu dem tukkil àdduna te ñu ànd ak incha allahu maanaam incha allahu ba jubluwu ca bu neexee yàlla mais daf ca jublu seen doom ba su boobaa rek yàlla ànd ci boobu la ñuy nekk briser clôture bi boobu la ñuy briser clôture bi mu ngi coïncider xam nga le début de l'apocalypse su commencé après dina am 17 ans d'apocalypse 17 ans d'apocalypse avant la fin du monde 17 ans d'horreur 17 ans de terreur mais gis nga si ci 17 ans yooyu su demee ba 15 ans jàll su 15 ans jàllee après le début de l'apocalypse su 15 ans jàllee ba mu des deux ans pour la fin du monde ci première année boobu nga xam ni mooy 16 année bi ci seizième année boobu nga xam ni ci la jant bi di di xëy yewoo yewoo à jant bi xëy génn à l'ouest ci jour boobu même ci jour boobu même ci la Yaajuuj ak Maajuuj di génn ci la ñuy bëtt ci la ñuy bëtt grillage bi briser clôture bi génn bu ñu génnee boobu fekk na Isa ibnu Mariam génn na adduna yàgg na parce que Isa ibnu Mariam su génnee adduna ba ñu denc ko à la Mecque ci ci loolu mooy marqué le début de l' apocalypse te te am na après 17 ans d' apocalypse 15 ans yi dina jàll ci 16e année bi ca premier jour bi jant bi di yeewu à l'ouest ca la Yaajuuj ak Maajuuj di génn brise clôture bi génn naviguer Bahru Kalsum di mer rouge dañuy sëgg dañuy sëgg ci mer rouge ñoom ñaar naan ko ba géej gi jeex takk moom góor gi ak jigéen ji ndax mar yàlla may leen nu naan géej gi ba mu jeex takk suñu naanee géej gi ba mu jeex tàkk nag génn wàcc commencé dugg dugg Égypte waaw commencé ravager dugg ci yeneen réew yi commencé ravager waaw commencé ravager waaw dugg ci péninsule arabique dugg ci euh, réewu réewu réewu àdduna yi benn bu ca ne ñu dugg nit ku ñu dajeel jël la dañ lay jël rek lump la te li gis nga lu yéeme mooy yàlla dafa def ci monstre yooyu pouvoir ak doole joo xam ni mën nañu lekk plus de mille personnes te day mel na lekk guñu ndax ay kéemaanub yàlla lañ moo tax alxuraan indi leen muy yaajuj ak maajuj bu ñu continuer Eh, di di di di lekk di détruire àdduna bi niñ doon yàqee suuf ci jamono Zulqarnayni ba mu parke leen nu ko raw la ñuy continuer di di yàq suuf waaw continuer di yàq suuf continuer di di di exterminer ñi ñuy dajel te daañuy dajeek ay nit ndax boobu dina am ñu fi nekk waaw immeuble yi buñ ci buñ ci dalee ci benn immeuble bi daanu day mel ni lii tubaab yi daan tuddee ay dinosaures nga xam ni depuis des millions et des millions d'années gisatuñ leen ñoom nag ñoo ëpp dinosaure xam naa tubaab yi sax buñ leen jàngoon dëgg daan nit ñi boo moytuwul ñoom ñooy maamu dinosaures yi ndax ñoom ñoo leen juróon ndeysaan ñu commencé di détruire lu nekk ci seen kanam ñu détruire ko waaw noonu la ñuy continuer di détruire yàlla bàyyi leen fi ci année boobu ñuy détruire àdduna bi nam leen neexe waaw di détruire nit ñi nit ñi di daw di làqu ñu di leen jàpp di leen lekk noonu la ñuy doxali mujj di dund ci àdduna fan leen parqué woon génn nañ ko léegi ci àdduna la ñuy dunde ku nu gis lekk la waaw immeuble bu ñu gis daaneel ko noonu la ñuy continuer ba année boobu jeex année bi nga xam ni moom mooy seizième année bi bu ñu duggee si di dix-septième année bi nga xam ni mooy dernière année bi avant la fin du monde yàlla daal di yabal ay picc yàlla daal di yabal ay picc picc yi dañuy mel ni ay genre dragon dragon yi bu ñu bu ñuy yooxu di cracher safara picc yi bu ñu génnee ba ci asamaan bu njëkk yi picc xay bu la ñuy jóge ndax ay malaayika la ñu jël yàlla moo leen jox jëmmi picc picc yi kenn ku ca nekk boo xoolee loosam loosam mi ngi rëy ba mel ni loosu gëléem picc yi génn ba tiim àdduna daal di brousse benn ngelaw ngelaw loo xam ni dafay mel ni ngelaw loo xam ni eh, ngelaw lu ñuul la comme kuy lakk pëna booy lakk pëna pëna nii ci plastique bi xet bi ngay sentir ci tàngoor beeg ci euh, xet bi ni mu wexe noonu la ngelaw li di mel picc yooyu bu ñu crasé ngelaw li ngelaw loolu mooy ñëw ci monde shahada ci àdduna su ngelaw li ñëwee nag fekk na yaajuuj ak maajuuj lekk nañu lu bare ci ay doomu aadam yàq nañu lu bare ci ay place te seen gabari ni ñu toll ak ni ñu rëyee ñoom ñu commencé di respirer ngelaw li suñ ko respirer nag dañ ci aspirer quantité gu bare suñ ci aspiré quantité gu bare mu jàpp leen ngelaw li mel ni ngelaw li mel ni genre genre gaz toxique ci seen biir yaram waaw mel ni gaz toxique ci seen biir yaram ñu taxaw ba yàgg rek seen biir explosé biiru yaa juuj mooy njëkk explosé ma juuj biiram explosé ñu daanu ci côté océan Pacifique fi mu nekk ci tefes gi foofu la ñuy daanu nga xam ni tey boo ko doon xool da ngay wax ni euh, mooy détroit yi ngay jël ci côté jëm jëm côté euh, Panama côté boobu précisément la waaw côté bi ngay jël ci ci ci Pacifique bi jëm côté Panama waaw bu ñu daanoo seen biir yi explosé dee nañu ñoom ñaar léegi nag yàlla yabal yàlla yabal ñaari picc yooyu nga xam ni ñoo ñoo ñoo wàccoon te brousse woon ngelaw li yàlla yabal leen ni jox na leen autorisation ñu wàcc benn picc bi wàcc moom mooy jël yaa juuj sex ko ci begam beneen picc bi jël ma juuj seex ko ci begam kon nga yëg ni picc yooyu it picc yu rëy lañu ndax yaa juuj ni mu toll picc bu ko mën a seex ci beg maa ni mu toll picc bu ko mën a seex ci beg picc yu rëy lañu picc yooyu ñooy jël naaw ak ñoom nag suñu naaw ak ñoom yóbbu leen ba ci moo sinaay nu sànni leen fa ñu sànni leen ci moo sinaay buñ leen sànnee ci moo sinaay nag daal di delloo xay ba bu ñu delloo xay ba nag nga gis su si commencé trembler waaw su si commencé trembler destruction yi commencé ba ni àdduna di tukkee waaw ba ni àdduna di tukkee waaye loolu en boo ko dégloo mooy histoire Yaajuuj ak Maajuuj waaw da ngay gis seen réalité kon na mel réalité bi nga xam ni moo ci làqu noonu na ni commencé ba loolu mooy seen destruction yàlla nag moo leen binde noonu waaw yàlla moo leen binde noonu waaye boo seetloo histoire yu bari ñëw na ca ndax am na ñu defa ni xeet bu bari lañu alors que ñaar rek lañu ak seen doom ji muy muy muy ñett gi te seen doom moment bi ñuy génn moment bi ñu ko boolee moom ci mbooloo mi bay génn bay naan baaru xalsum seen doom seen doom boobu ñu àndal ndox mi muy naan ci mer rouge ndox mi moo koy rey waaw moom du jot lekk kenn yaayam ak papaam ñoom ñooy continuer di détruire àdduna ñooy continuer di détruire humanité bi la fa desoon ñooy continuer di détruire immeuble yi ñoom noonu la ñuy doxee muy diggante Yaajuuj ak Maajuuj loolu mooy seen réalité waaw léegi nag su ko defee ñenn ñi nga xam ne dañuy faral utiliser terme philosophique ñoom ñoo koy jël d'un côté d'un côté ñu dem ba naan Yajuuj ak Majuuj ñoom ñooy euh, goog ak Magog ñii ni mooy diggante États-Unis ak Russie waxin la rek waaye nag réalité bi ci histoire sainte ñoom seen dund nii la tëddee waaw te yàgg nañu exister ndax am na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba bu tëddoon guddi géntu ñu ni que Yajuuj ak Majuuj brisé nañu seen clôture ba génn nañ mais gis nga bi mu ñëwee informé ko le prophète de l'islam wax ko yonent bi yonent bi dafa ree ni ko xam naa gént la da nga gis lu accès gul waaye nag clôture boobu dun ko brisé lu dul ay ay ay jamono yu néew des ci àdduna tukki waaw ay jamono yu néew des ci àdduna tukki kon loolu mooy seen réalité ay être lañu yoo xam ni yàlla moo leen bind pour pour boole leen ci biir apocalypse bi pour ñu gën a intensifier horreur bi am gën a intensifier terreur bi am ci monde bi ci jamono jooju tabarakallahu yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla sàmm leen yal yàlla mottali yéene ci zaahir ak ci baatin ñu ngi lay ziar bu baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu